وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi nuyu yi mbokki lislaam ji yëpp di borom subhaanahu tabaaraka wa taala suñuy kàddu fekk leen ci jàmm ak yërmandeem ak njéggalam di matale ñu del si waat rek ci jotaayu yóbbulum ndaw ñi muy jotaayu xam-xam jotaayu fàttali comme niñ ko baaxoo di waxe ñu ngi tolloon nag ci sunu téere bii ñuy wax tasawwalu sixaax mu mel ni nag nekkoon nañ ci sunu xaaj bi mujj ci téere bi ci ndénkaane sëriñ bi yu am solo yi nga xam te ni doon na ko dénkaane bépp jullit ndénkaane yooyu nag sëriñ bi daf ko def ñetti xaaj mu mel ni suñu xoolee suñu jotaay bii mujj jëloo nañu xaaj bi njëkk ci dénkaane ba mu jeex kon dañuy fas yéene tàbbi ci dénkaaneem ñaareel bi bismillahi rahmaani rahim yaa ayyuha sibyaanu yéen ndaw ñi laatu jaalisu bu leen toogaaleeg sax san jëmm safiihan joj aji deseedi fa jaalisu na di toogaale arrasida aji jub ja inna arrasida naka aji jub ja yaxruju day génne aljalisa aji toogaale ba mi xamsin tukkee ci juróom li xamsin jëme ko ci juróom aysu yaxruju foofu xamee ne dana mooy yuxruju dana génne almuraafixa aji àndaale ja mina riyaa yi ci ngistal li xayri ixlaasin jëme ko ci gën di sellal wala ñu naafiqaa te déet muy naafiq mu ne wa yuxriju ak muy génne arrafiixa aji àndaale ja min min takabburin ci ilaa tawaaduxin jëme ko ci toroxlu wala tasabburi ak muñ wa yuxriju ak muy génne ashaahiba aji àndaale ba min xadaawa ci noonoo wala bañ benn bépp benn jullit ilaa nasihatin jëmi ko ci laabireet bilaa saxaa wax lu dul wa yuxriju ak muy génne al aniisa aji wéttalikoo ja min sàkkin ci sikki sàkka ilaay xayri yaxiinin jëmi ci gën di wóolu xat yasiiduhu gob dana ko dolli xolaa kawe wa yuxriju ak muy génne al muriida aji namm ja min xobbi ladi ci bëgg la nga xam te ni yaduruhu dana ko lor li naafihin jëm ci aji jariñu ja fi maqazi ci jàppuwaay ba sëriñ bi dafa dénk bépp ndaw rawatina bépp jullit buy tànn ab toogaale mooy xam koo xam te day toog ak mu tànn ko bul def koo jekku rek wala koo gis rek di toog ak moom sëñ bi kat nee ab toog toogaale kay da war a tànn da nga war a tànn koo xam te ni da toog ak moom da nga war a tànn mu ne kon na nga tànn ab toogaale bul toogaale koo xam te ni dafa dese koo xam te ni dafa dese nag bu ko sëñ mooy koo xam te du la dolli dara ci sa du la dolli dara ci sa àdduna boobu mooy bi ci njëkk na nga toogaale ki nga xam ne dafa jub dafa mat ci àdduna mat ci diineem neen booy toog na ngay toogaale kooku mu ne nangay ngay koo xam ne nii kat boo toogaale moom dina la génn ci juróomi mbir yóbbu la ci juróomi mbir muy fukki mbir yoo xam ni benn bu mu la génn dina dugal ci beneen fukki yooyu nag lañuy ñuy bëgg a lim ba ca njëkk mooy seen bi nee na ngay toogaale koo xam nii boo toogaaleeg moom kat dina la génne ci li ñuy wax ngistal mooy jëf te yàlla taxut walla ngay wax te yàlla du tax fum lay yóbbu ngay jëf te yàlla rek tax ak ngay wax te yàlla rek tax te loolu mooy ak sellal mu ne na ngay toogaale koo xam te nii kat dina la génne ci rëy rëylu mooy nga yaakaar ne yaa gën mbindéef di leen xeeb wala ko am daraja nga yaakaar ne yaa ko daraja di réy rëylu ci kaw nit ñi nee na dina la génne ci ak rëy yóbbu la ci ngay torox lu xam ne lépp loo mën di am nga xam ne yàlla rek moo la ko jox nga delloo ko yàlla sant ko ko te bañ a rëy rëylu ci benn benn mbindéef wala nga yaakaar ne yaa gën yaa gën mbindéef yi kon da lay toroxlu ak ci mën a muñ mu ne ba tey na ngay toogaale koo xam boo toogaale moom dina la génn ci noonu benn jullit te yàlla taxul ngay bañ benn jullit te yàlla taxul fu lay yóbbu nag mooy nga sopp bépp jullit te yàlla rekk tax di laabire bépp jullit boo gis boo ko mënee sax dimbali nga dimbali ko mu ne tamit na ngay koo xam te ni boo nekk ak moom dina la génne ci sa sikk sàkka bu fekkee ne sa xol day sikki sàkk ci sa diine di sikki sàkk ci sa xol nga xam ne sa diine sa fit dalut ci sa diine dina la génne ci loolee dugal la ci sa xol nga am ci wóolu gu wér ci sa diine ak wóolu gu wér ci sa xol ne ngëm gu mat am nga ko mu ne na ngay toogaale koo xam te nii dalay génne ci bëgg lépp lu am njëriñ rawatina ngay bëgg loo xam ne ni dalay lor ci lum lay jëmee mooy nga bëgg lépp loo xam te nii kat boo ko bëggee lu am njariñ lay doon loo xam ne ni doo am benn lor lay doon kon loolu mooy fukk yi nga xam te ni suñ bi koo dénkaan benn bu la dénk na la mu ne kon na ngay jëmm joo xam te nii boo toogaaleeg moom dina la génne ci juróom yi dugal la ci juróom yee kon booy tànn ab toogaale na ngay tànn bu mel nii sëñ bi dénkaan mu ne waxtani mu na ngeen mànq loolu nag mooy xaajub ñaareel bi xaajub ñetteel bi ci dénkaane bi kon mu ne waxtani mu na ngeen xam san juróom xubaay la xam si njëkk juróom kama amara ni ko mu ko digalee bii ca moom xayru intin gën ji mbindeef yi alayhi yàlla na nekk ci ñoom mu ne alayhi yàlla na nekk ci moom afdalu salaati gën jaa sell xewel yàlla bi salaamin ci ànd ak dolli bu wóolu fii aali yi ci ay ñoñoom wa saxbi yi ak ay saxaabaam al xurri ñay ay sang alkiraami ñay way tedd mu ne kat na ngeen gaawantu njëkkande jëm ci juróom njëkk juróom di ñëw ni nga xamee noonu la ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dénkaane muy dénkaane lu am solo mu ñaanal yonente bi ak waa këram ak ay saxaabaam awaluha aji njëkk seen asabaabu mooy ak ndaw xablal xarami njëkk ak màgget wa misluhu bokk na ci ak kemam as sixatu ak wér xabla saxami njëkk ak tawat saalisuha aji ñetteel seen alxinaaw mooy ak koom xablal faxri njëkk ak ñàkk summal faraaxu topp ak jot xabla suxli njëkk ak xat di ñëw njëkk soxla yi yasri yi gob dana doge xaamisuha juróomeel bi mooy dund xablal mawtu njëkk ak faatu fasaaribu ni ngeen gaawantu lil xayri jëm ci aw yiw xablal fawti njëkk faat ga kon mu dénkaane juróomi dénkaane yoo xam te nii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woon na ko muy dénkaane yu am solo muy juróom yoo xam te nii juróom boo ci nekk benn boo ci nekk di nga xam ne moroom ji ma ngay ñëw mu ne na ngeen gaaw jëm juróom njëkk juróom bu njëkk ba mooy ak ndaw boo ci nekkee nekk xale na nga gaaw jëf ca lan ca war a jëf njëkk ak màgget di ñëw ndax xale boo gis bu dundee ca màgget lay jëm te boo màggetee kat am na loo xam te nii danga woon a jëf ci ak ndaw jëfoo ko duutoo ko mën a jëfati kon na ngay gaawantu boo nekkee ndaw di jëf la nga war a def njëkk ak màgget di ñëw mu ne ñaareel ba mooy ak wér boo wéree dara darul la boo yëkkatee sa loxo mu yëkkatiku nga nga bëgg a lekk lekk bëgg a naan naan bëgg a dox dox dara darul la nee na na nga jóg jëf ca la nga war a jëf ca lu baax te xam ne kat ak ràgg mu ngi ñëw mooy ak tawat mu ngi ñëw wér boo gis ak tawat dina ca toftal ci tawat ga bu dikkee dootoo mën a jëm ci la nga waroon a jëf kon boo wéree nag na nga gaawan jëf si jëf yu baax njëkk ak wéré di di ñëw ñettee ba mu ne al ghinaa'u qabla ak koom boo amee alal am koom na jëf ci alal joojee lu baax na nga jëf loo xam te ni dina mën a jëriñ ëllëg yi man xiyaam na la jëriñ fi tamit ci sa àdduna ndax na xam ne am boo gis la cay topp mooy ak ñàkk ñàkk gi nag am na ci façon yu bari ndax nit ki mën naa faatu bàyyi faalal ja nit ki mën naa dem ba ci yàgg àdduna wëlbati ko ballam amoon ci alal amatu ko xeet yu bari yooyu yëpp di dale mën naa laa dal kon nag boo amee na ngay gaawan bu jëf ci lu baax loo xam te ni dina la jariñ ëllëg dina la jariñ tey fii jariñ la ëllëg njëkk ak ñàkk di ñëw ndax xam nga ne am goo gis ñàkk a ciy tegu mu ne summal faraaw xabla suxli mu ne tamit na xam ne jamono ja nga féexee di foo dara nga xam ne am nga temps am jot jot gu bari nee na na ngay jóg jëf la nga xam ne kat bise ngi ñëw di nga xati soxla yi dina ñëw nga xat juróomeel ba nag alxayaatu xablal mawti juróomeel ba mooy yow mi xam da ngay dund nekk di dund na nga fexee jëf jëfu yiw lépp luy maye tiyaaba lépp luy jëriñ àdduna ak àllaaxira nga du def ko te xam ne kat dee mi ngi ñëw te dee moom bu xasee dikk fa la yam waay ba yam lépp loolu def rek day daal topp day daal di kon nag nanga fexe fexee jëf booy dund jëkk dee di ñëw ndax dee kat bu xasee ñëw moom jeex na waaw kon nag jamono bi nga xam ne yaa ngi dund suñu boo may ak dund na ci jëf loo xam ne dina la jëriñ tey dina la jëriñ ëllëg yow xiyaam njëkk dee di ñëw ndax dee rek moo ci tegu mu ne xunantaha fii la yam tasawadu sixaari yóbbulub ndaw ñi bi xamdi rabbi ci sant sama boroom almaanixe saxaari yàlla muy aji far ak texe mu nekkat kon téere bi fii lay am moom tasawadu sixaar kon fii la yam muy sant yàlla boroomam mi nga xam te ni mooy aji faat jëpp ji texee ji kon nag dañuy wàcce suñu kàddu fii ci kàttanu yàlla di jox nit ñëpp dig daje ci beneen jotaay muñ dikkee wax nag ni sëñ bi woyee téere bi ak njariñ ji téere yi am ak ki nga xam dafa jàng téere bi li ko sëriñ bi defal ci téere bi te jële ko ci yàlla ak ci yonente bi muy loo xam te ni képp ku jàng téere bi am nga ngëneel yu toll noonu ñu ngëneel yu am solo yoo xam te ni ku ñu topp ci kanam incha allah rabbi nañ la indil ngëneel yu am solo yi téere bi am ak jagle yi téere bi am incha allah rabbi kon ñu ngi wàcc fii kàddu yi di wax na lépp lu jug nañu xam ne ci sunu borom la subhaanahu tabaaraka wa taala bu fi dëng nañ xam ne ci jëmm yu xeebe yi ñuy déglu la ak ñàkk xam-xam la ak bëgg lu baax rek mooñ ci in uridu illa al islaaha mastataxtu ma tawfiqiya illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu sëriñ bi de sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey